AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV rahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allasi bihi lana al uda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan min xul uqad wa shalhu dakiran wa shakiran abad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 ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci daara Hikmatul Yawmi nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 712 44 71 ngir ñi bëgg am ay leeral ci daara ji wala ñu bëgg a bind seeni doom ndax njàng mi tàmbali na tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li ñu tàmbali fan yi ci diggante sëriñ si ak taalibe yi te fan yi ñu andi ci yi sëriñ bi ak lenn ci wax yi mag ñi àndoon ak sëriñ bi te démb ñu waxoon. laaju sëriñ Modou Khady mbakki boo am solo boobu mu laajoon sëriñ bi ci ñi njëkkoon a ànd ak moom la doonoon seen yitte ak murid yu mujj yi li doon seen yitte muy yitte ju yitte yu wuute ah, dégg naa ci sëriñ Hamza Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mu nettali ne ci jamonoy sëriñ bi am na kuñ doon wax eh, am na am na am na kuñ doon wax sëñ Banda Sow sëñ bànd Sow sëñ Bànda ko yéeme woon la wax nañ ne nituk nituk tasawuf la woon koo xam ne nii eh, daanañ ko méngale aw doxinam ak Cheikh Ibra waaye nag lii Cheikh si am muy mbooloo ak eh, ak yooyu moom da ko amutoon te sonnoon lool ci kër ci kër sëriñ bi waaye wax nañ ni aw doxinam yéeme woon na yéeme goo xam ne dañ ko daan méngale ak Cheikh Ibrahima Fall moom sëñ Bànd Sow nee na nag benn bis sëñ Mandumbe xabbaan xaritam la woon lool mhm. dal ñëw ci sëriñ bi ngir doon ko dagaan doon ko ñaan mu defal ko lim defal ñépp bi ko waxee sëriñ bi sëñ Tuubaa ne ko Bàndaa la ko wax mu ne ko déedéet waxuma ko de Mbàkke man kay maa eh, maa doon sàkku rek bu fekkee loolu mën naa nekk nga defal ko ko sëriñ Tuubaa daal ne woo leen ko bu ko bëggee ñu defal ko ko léegi bañ woowee sëñ Bandu Sow bi mu ñëwee biñ ko ko waxee dafa dal jóg fa saasa naan cam cam cam cam ji foo toll di ko dégg naan man bëgguma takkaay borom takkaay yi laa bëgg bëgguma takkaay borom takkaay yi laa bëgg kon dafa mel ni murid yu njëkk yi ñoom borom takkaay yi lañ bëggoon murid yu mujj yi na ñoom takkaay lañ bëgg moo leen tax a jóg moo tax sëñ Bay Jaxate daf daan wax ne nit dara waru koo yitteel loolu yàlla moo tax mu ne lay tax nga jiitu say moroom tey ak ëllëg fa sa borom ba ñëpp naa amoo moroom du nelaw ak lekk lu duuf fexe la am lu kenn amul te loola nag yàlla asal du kër yu jag du ay alal du soxna yu soq ko foofu yéefar yi am nañuy alal te am nañuy soxnaa ki njël yàlla la ab yéefar amul ak topp yàlla gu nangoof bari alal taxul a gën néewi alal taxul a bon lay tax nit ay gën a ko bon ca xol ba lay nëbboo ko bóof kon mm, nañu nañu nañu góorgóorlu bu baax te xam ne sëriñ Tuubaa a fa nekkoon ci jamono yu njëkk ya ni ko sëriñ Moodu Xaadim Mbàkke laaje ak jamono yi tey jii ñooyam sëriñ bi moom du soppeeku ndax mbiram mbirum yàlla la te mbirum yàlla du soppeeku ñun ñii ñooy soppeeku kon képp koo xam ne ne am nga pas-pas am nga yitte eh, am nga itam paseefu la mag ña amoon nga am ko du lu jomb de lu mën a nekk la jombut jombut lu mën a nekk la kon nañ ci góorgóorlu yàlla nañu ci suñu borom defal tawfiq defal ñu ci sutura rawatina nag kilifa gu baax gii nga xam ne nii moo nekk suñu kanam ku ko roy de danga am pas-pasu te nga am pas-pasu mag ña danga am la mag ña amoon muy Cheikh Mouhamadou Mountakha afsahullaahu warha yàlla na fi yàgg loolu te wér yàlla na suñu borom dolli tawféex defal na sutura def ñu ay murit saadex yuy sàkku ngërëmul sëñ Tuubaa te dajeek ngërëmul sëñ Tuubaa ndax moo ñuy jëriñ àdduna moo ñuy jëriñ àllaaxira ñoo ngi soññaat suñu bopp di soññaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi ci liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir